أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ñu ngi àndaat ak yéen ci buntu ñaar fukkeel ak juróom benn ci kitaabu tawxid buntu bi di jàngale ma jaa fi nusra li ñëw ci jat mu ne abu saada kenn la ci boroom xam-xam yi jàngale nee na an nusratu darbun min min al ilaaj war ruqiya nee na baat bi di nusra li muy tekki mu ne lu ñuy jëfandikoo la ci fajaate ak mocc yucaaliju bihi man kaana yuzannu anna bihi massan min al jinni nee na ki koy jëfandikoo di ko def di ko fajee ki ñu koy fajee dañoo jàpp ne jinne daf ko laal ku ñu jàpp ne jinne daf laa laal ki lay faj mooy jëfandikoo baat yii ñuy wax an nusra mu ne sumiyat nusra looloo tax ñu tuddee ko loolu li annahu yunsaru biha anhu ma xaamarahu min adda mu ne ndax ki koy def daf koy def ci ki nga xam ne moom la feebar bi jàpp ay yukshafu wa yuzaalu mu def ko pour lan pour mbir mi fekkoon dañ ko fas mu fecceeku mu fekkoon dañ ko takk mu tekkeeku mu fekkoon dañ ko yeew mu dagg mu fekkoon ne luñ ko def la mu dañ cheikh boobu ñu naan saada moom noonu la tekkee an nusra alxasan mu ne an nusra min assixri mu ne lii ñu naan jat ci ak njabar la bokk bokkul ci diine ci njabar la bokk wa qad nasartu anhu tanassuran wa minhu alxadis nee na xadis ñëw na ci bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg sax ñu firee ko qul auzu bi rabbi nnaas ay raqan mu ne ki nga ki feebar ñu koy jàngal qul auzu bi rabbi nnaas ki koy jàngal qul auzu bi rabbi nnaas lan la bëgg non lan la koy def noonu loolu mu koy def nan la tudd déedéet loolu tuddul jadde loolu mocc la tudd kañ lay tudd jat su fekkee baat yi ñuy wax kenn xamu ko du baati arab du baati ñun sunu làkk yi yu nu dégg da koy jaxase ak di ci wulbati alquran wala hadis wala ñaan su boobaa ñu tuddee ko jat mu ne qaala ibnu aljawzi an nusratu xallu sihri an almasxuur ibnul jawzi moom nee na an nusra mooy dindi njabar ci ki ñu njabar moom mun na la ko tekkee nee na njabar la bu ñuy dindi ci ki ñu njabar mu ne walaa ya walaa yukaadu yuqdaru alayhi illa ma yurafu sihr nee na loolu nag duñ ko xaw a mën a def kii dindi njabar ci ku ñu njabar du ko xaw a mën a def lu dul mu xam ak njabar su fekkee waa ji xamul njabar du mën a dindi njabar gi ñu def waa ji kon ki koy dindi day xam li muy dindi lu mu mu ne jële nañ ci jaabir mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ani nushra yonent bi laaj nañ ko fa qaala hiya min amali shaytan rawahu ahmad bi sanadin jayyid wa abu daawud yonent laaj nañ ko ci baat bi di jat mu ne jëfi seytaane la ahmad moo solo hadis boobu wa qad suila ahmadu anhuma fa qaala ibnu mas'ud yukrahu hada kulluhu imam ahmad nee na laaj nañ sax ibnu mas'ud mbir mi mu ne la ca bokk lépp daal dañ ko sib amma yonent bi yàlla yónni woon moom bañ ko laajee lu mu wax nee na mbiru seytaane la ndeke kon looloo tax mbiru faju ci wàllu jinne ci wàllu seytaan suñ nee jinne nag wala ñu ne seytaan léeg-léeg ci ku dëkk Sénégal fajkati jinne yi dañ ciy naxaate wala jabarkat yi dañ ciy naxaate léeg-léeg nga gis am njabarkat boo xam ne danaan man alxuraan laay fajee wala mu ne man fajuma jinne fajuma seytaane lan laay faj rab wala mu ne rawaan fekk rawaan rab jinne seytaane benn la benn kese la waaye bëgg a tappale ak nax nit ñi ak mbubboo lu xaraam te bëggoo xam ne nit ñi xam ne ci lu xaraam nga nekk nga ne rawaan laay faj man ay rawaan laay faj wala nga ne man rab laay faj fekk dara daganu ci li ñu daganal ci islaam ci ku jinne jàpp mooy ñu mocc ko mocc sunna jàngal ko aayaat yi bu laajee ñu def ko ci ndox mu naan wala mu sangu wala ñu wis ko ko ñu jàngal ko aaya yi bu fekkee ku njabar la yonent bi jàngale nu ñuy dindee njabar te mooy aaya yu ñuy jël di ko jàng ak jël xobi xobi siddéem tegale ko ñaata xob juróom-ñaar tegale ko ci xeer tucc tuccal ko jàng aaya yi def ko ci ndox boole ko ci sang ci waa ji njabar bi dañ wala ku ñu takk xala xam ngeen kuñ takk xala booy xam nga xala xamoo ko baax na xala mooy léegi da ngay bëgg benn xale bu jigéen bu ko takk ah xale bu jigéen bi xam ne ñeneen ñu bëggante loon ñooñu bañ nga takk ko ñu jéem jéem mënuñ ci dara ñëw la ci njabarkat mu takk la dootoo nekk góor dégg nga de loolu mooy xala surtout nag jouru mariage bi loolu lu ëpp jouru mariage bi lay dal ñu takkal la soxna si mu sëy si sa jabar la guddi jot ngeen war a tëdd fekk gaa yi yeew nañ la bu yàgg loolu mooy xala léegi nag nga fanaan nag am problème nag dafa ne sa àdduna yàqu na fekk du dara mbiru seytaane la boo xëyee nga dem ci yenn mbokk yi dindi loolu mën nañ la kaa dindil mu ne hadha al hadis hadis bi nga xam ne rawahu ahmad wa rawahu abu daawud fi sunanihi abu daawud suna solo ko ci sunnaam téeréem walfadl ibnu ziyad fi kitaabil masail kooku tamit solo na ko ci téere boobu abdurazaq ak uqayl ibnu muallaq ibnu munabbah ñi ñëpp solo nañu hadis boobu soo toppee càllale gi mu ne laaj bi nga xam ne laaj nañ ko ci nusra mu ne loolu mooy li nga xam ne doon na ko def allati kaana ahlul jahiliya yasnaunaha mu ne hiya min amali shaytan right mu ne loolu nga xam ne ceddo yi ñu ngi ko doon def suñ ne ahlul jahiliya mooy ceddo léeg-léeg nga dégg kenn mu ne ba ma nekkee ci jahiliya loolu wax bu garaaw la munoo nekk jullit nekk ci jahiliya yow kay ne ba sama ngëm yàlla da yi fee rek ma nekk ci caaxaan yi waaye jahiliya mooy ak ceddo ak ceddo ku ci nekk nekkoo ci lislaam léeg-léeg nga dégg ay ay nit di ko wax naan ba ma nekkee ci ja maanaam ba ma nekkagul sunnit dañoo jàpp ne xëy na période yooyu jaahiliya la ku jaahil ab jaahil ki nekk ci ceddo ki ñuy ki ñuy wax xam ngeen ab ceddo du julli mooy ko amul diine xëy na yow jamono yooyu yaa ngi góorgóorlu ci diine waaye lu bari leerul woon ci yow léeg tamit nga dégg kenn ci borom xam-xam yi mu ne ñun ay tuubeen lañ ba ñu nekkee ca ceddo ga looloo tax lii toppunu kon nit foofu tamit coow li fa nekk mooy nit ki bu tuubee amatul droit def yi fu ceddo parce que tuub nga munoo ne tuub naa ba pare di tarxiisa di dugg ci mbirum ceddo di ca nekk di ko jëf bañ koo bàyyi suñ la waxee nga ni ñun suñuy maam ay tuubeen la ñun mënuñoo bàyyi lii kon kay tuubagu leen kon nañu xam ne nusra muy lii ñuy jàng tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko laajee lu mu wax mu ne mbiru seytaane la waaye yemu ci waaye mu ne ceddo ya ñoo ko daan def allati kaana yasnauha ahlul jahiliya hiya min amali seytaan nee na yooyu ceddo yi daan def démb mbiru seytaane la woon jëfi seytaane la kon léeg-léeg ci sunu yëngatu ci sunu wàllu dund diine am loo xamante ne ñu ngi ko fekk ci sunuy maam fekk baaxul dañ ko war a bàyyi gis nga loolu ba léegi ni ñuy jàppee xar yi di leen takkal ay sagar yi xonk di ngeen koy gis ñu ne xar mi xarum benn melo la takkal leen ko wala dagg leen nopp bi yooyu yëpp mbiru ceddo la ab jullit waru ko def ak yu baree baree baree bari yoo xam ne tey ci biir dëkk bi ci ay aada ceddo yi ñoo ko doon def waaye ñun ba léegi nu ngi koy def te loolu du diine diine moom boo ci nekkee lépp luñ doon def ci mbirum ceddo da nga ko war a bàyyi lépp loo xamante ne mbirum jaahilee la amatoo droit jege ko ndax yow li ngay dund dafa leer ndax ay texte ngay dund rawatina nag loo xam ne texte yi dañ koo tere lu mel nii ñuy jàng tey loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu moytandiko moytandikuloo ko suñu njaboot ak suñuy mbokk ku ñu déggal mu ne laaj bi mu wax ne suila imam ahmed ak ibnu mas'ud mu ne lu ñu sib la mu ne ana ibnu mas'ud yakrahu nusra mu ne ibnu mas'ud ci boppam moom ku ko bañoon la gis nga ibnu mas'ud mës na génn rek mu ñëw këram mu fekk jabaram am lu koy metti rek mu takk wuñ gu weex wuñ gu ñuul ak ban wëñ wuñ bu xonq ñetti wañ yooyu la gaa yi di takk mu dugal ci baaraam rek daal di koy dagg ne ko ibnu mas'ud ak waa këram doylu nañu lii ñoom lii duñ ko def dafa dugal loxoom rek dagg loolu ñaata ci ñun ñoo koy def rawatina ku am ay loxo yu métteeg ku am angine nag ku am bëñ buy métteeg xëy rek ñu ne la yow sa bëñ bi yàgg na de lii est-ce que bëñu kese la lii wóorut de yooyu lañ lay wax nag yéen nag da ngeen a dëgër bopp waaye dem leen rek di ngeen xam ne ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf yooyu la ñuy gëmloo nit ñi ay ku gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la fuuf waaw yéen gëmu leen ko waaye dem leen rek ab jullit de du gëm xarfa fuufa ab jullit ab jullit bu fekkee li muy wax ci moom dëgg la xarfa fuufa doo ko gëm xarfa fuufa amul lu mu mën mbir yooyu yëpp ay mbiru seytaane la waaw léegi nag loolu lañ lay tiital baaraam bi xaw a yàgg métti yow tamit nag defoo ci benn ñaan defoo ci benn askar parce que wóolu woo sa bopp waaye qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi naas ayatul kursi amana rasul ah a'udhu bi kalimatillahi tamma bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa yooyu ku mënalul dara dara du la mënal tus te sax yenn saa yi souvent ci ñooñu ngay dem ñuy mocc yooyu dañoo réer rek waaye yenn saa yi sax ñu jàngal la loolu def ko ci daal di la koy takkar rek mais sénégalais ci boppam moo bëgg lu lu ñàng sénégalais ci boppam moo gëm lu ñàng waaw moom ay ñaan yi ay xulon de falak tey bu la benn waaye benn waaye mos na wax benn benn borom moom mu ne ko ñaanal ma damaa bëgg a tukki waaye ne ko bismillah taalal loxo yi daal di jàng ayatal kursi yi mu ne ko lii kese lii kese gis nga ni mu ko xeebee pour ñoom seen i ñaan da ngaa war a def yi kenn xamul noonu la ñu def nag ba suñu diina bi yëpp lëndëm léeg-léeg nga ni nit tudd doom nodd la ak li xam mu ne la loolu kese loolu kese de waaye paa am na lu ñuy jàng loolu kenn mënu ko ñoom rek ñoo ko mën léeg-léeg ñu ne la sang néew boo sangee néew ba pare nang sang néew wóorul de dafa dangereux ngeen def attention ndax néew yi yemuñu boo sangee néew ba pare am nga looy wax looloo tax Sénégal kenn mënul dara dara loo wax dañoo yaakaar ne am na leneen lu nekk ci ginnaaw fekk dara amu ci parce que ñi fi nekkoon aussi loolu la ñu wone pour lan jéem a aaki moo mbir bi bu kenn xam ñoom léegi ñooy tudd ñooy sang ñooy takk sëy yi ñooy def lépp pour aaki moo poñet gu ndaw ndawaan googu di ci faqastalu di génn bu ko kenn mën ñoom rek fekk dara amu ci takk sëy amul lenn lu ñu jàng loolu xutbatul xaaj sang néew amul lenn looy def boo pare du nga dem jàppiwaat jeex amul tudd doom amul lenn looy def lu dul nodd ak nga xam amul yeneen te sax am na ci xadis buñ ciy jam ci ñaari xadis yooyu loolu yëpp li ko waral mooy lii rek a xew ci sunu jamono bi mooy jël diine ji nëbb ko wala am yeneen yuñ ci dugal comme yii yonent bi di tere sallallahu alayhi wa sallam léegi nag su ko defee kenn du xam ñi tiital nit ñi nee na ibnu mas'ud moom ku bañoon lii la da ko siboon parce que nee na jëfu seytaane la kama yakrah taaliq at-tamaim mutlaqan ku bañoon tamit takk ay gàllaaj la gàllaaj me ne nga dégg ñu ne yéen yéen yéen da ngeen dof gàllaaj fii lañ ko fekk sunuy maam di ko def ah moo tax Sénégal li ëpp ci nit ñi takkati gàllaaj lañ semaine bi passé am na benn waaye boo xamante ne dama ko nawoon trop trop trop trop dama ko nuyu ne nii mbagg mi rek daj affaire yi mu takk fi ba mu fees sama yaram bi dafa daw bi sama loxo ne rëpp ci affaire bi sama yaram bi dafa daw ma ni waaw kii ndeke moom fi mu toll day takk gàllaaj te li ci gën a dangereux nag mooy takk ay yax ak ay kànnaar ak ay xeer ak loolu nga xam ne mënul dara tus la mënul waaye comme réew mi moom réewum bokkaale la réewum njabar la ak réewum seet ak pitaaw yooyu daanaka genn wàllu nit ñëpp dañ koy def néew na ci nit ñi tey ku dul takk gàllaaj néew na trop trop trop trop trop trop di nga gis waa joo xam ne mu ngi góorgóorlu ci diine di julli jëm jàkk fajar tisbaar takkusaan timis gée waaye boo nee nii ndigg li wala mbagg yi wala otoom wala buntu këram rek wala biir saalam rek boo toogee ni ba siggi rek gis gis gis affaire yi ñu takk te loolu du diine waaye fii moom mënuñoo gëm ne loolu du diine yonent bi ndax mos na takk sallallahu alayhi wa sallam ndax mos na takk sul takk ndax takkloo na ay doomam ndax takkuloo na Fatima saxaaba yi ndax daan nañ takk niñ ciy mayee sax tanas tuut mooy Qur'an te kooku tamit dafa am ay charte kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kii moom nee na Ibnu Mas'ud ku ko bañoon la rawatina nag takk gàllaaj mu ne bu ñu demee ci Buxaari rahimahullah dañ fa fekk hadisu Qataada mu ne qultu li ibnu musayib rajulun bihi tib aw yuxaz an imraatihi an yuxalla ayuhallu anhu aw yunsaru qala la la ba'sa bihi qala la ba'sa bihi innama yuridu bi al islah amma ma yanfa'u falam yunhi anhu suñ demee ci qataada mu ne laaj nañ boroom xam-xam bu tudd ibnu musayib ñu ne ko benn waaye boo xam ne moom de dafa bëgg faje wala ñu dindi ci soxnaam mbir yoo xam ne dañ ko ko defoon mu ne ndax waa jooju mun nañ koo jat wala ñu mocc ko mu ne laa baasa bihi bonul lu bon amu ci lu tax lu bon amu ci mooy waaja ki koy def bu fekkente ne la muy wax ay baati arab la yu set comme mocc aizuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytani wahama wa min kulli aynin lamma wala bismillahi lati wala lu baax lay wax nee na loolu dara nekku ci waaye bis bu baat yi raxee mu am luñ dul dégg ak njaxas xamal ne musiba dugg na waaw looloo tax dem ci nit rek ñu ne day mocc dënn sa dënn rëcc wala ñu ne da ngaa rëq day mocc wala ñu ne rek nga ñëw rek mu naan la naan nii di raay naan nii xamoo lu muy wax wóorul li gën mooy mu wax la nga dégg waaw lu bëri ci dañ naan nii rek nii xamoo lu ñuy wax naan nii di fettas wala gis leen loolu xamoo lu ñuy wax di naan nii di raay ci affaire bi naan nii ci bu yàggee ñu tufli xamoo lu ñuy wax de kon li gën comme yow yaa feebar te da ngay faju booy faju nga fajoo léegi léegi rek ci ngoon maa ngi waxtaan ak benn xale mu naan ma yàmbaa day faj ndax léeg-léeg nga yegg ci yenn douleur yi ñu jox la yàmbaa nga muqi ñaari yoon affaire bi daal di sedd ak nga lépp lu araam yàlla du digal nit mu fajoo ko sàngara kenn du ko fajoo lépp lu araam du ñu may nit mu fajoo lu araam lépp lu araam rek araam na lu araam kenn du ci liggéey araam naa jaay araam naa yëngut araam naa fajoo bu doon lu ñuy liggéey la kenn du ko liggéeyee bu doon lu ñuy jaay la kenn du ko jaay bu doon lu ñuy fajoo la kenn du ko fajoo ndax dafa araam même boo nekkoon ci yenn douleur yi bay bëgg dayit kenn du la digal permettre la ne la naanal sàngara wala muqal dorog wala tuxal yàmba wala dafa xaram ab jullit du ko def mu ne waa ji bu fekkee innama yuridu bihi al islah bu fekkee waa ji dafa bëgg a yéwénal dafa bëgg a defar dafa bëgg a faj mu ne fa amma ma yanfa fa lam yunha anhu bu fekkee luy jëriñ la kenn terewu ko te day jëriñaa de kenn terewu ko waaye bu fekkee du jëriñe day lor loolu diine tere na ko ab jullit daf ko war a moytandiku mu sori ko mu ne xataada bii ñu doon wax mooy ibnu daama mu ne siqa boroom xam-xam la woon bu mag faqih ku déggoon diine la min ahfazi tabiin mu ne ci génération bi toppoon ci saxaaba yi ñi ci dàqoon mokkal ci la bokk ñu ne mu ngi faatu atam téeméer ak fukk ak lu ci tegu tuuti ci ay at ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wax jim ne rajulun bihi tibb mu ne sixrun wala tubba tubba dina loolu njabar la moo tax ñu tere ko waaye bu dee du njabar terewuñ ko yuqaalu lahu tubba arrajul biddammi ida suxira mu ne bu fekkente ne ak njabar la moom loolu lu nu dàq la waaye bu fekkee ak njabar amul ca nit ki la muy fajoo loolu manees na kaa nangu ab jullit fajoo ko ndax ak njabar dafa araam kenn du ko fajoo léeg-léeg lenn ci ñun ñu ne waa ji dañ ko njabar kon mun nañoo utiliser ak njabar dindi ko déedéet kenn du jël lu araam di ko faje lu xaraam waaw ak njabar wala ak xërëm xërëm du ko dindi dañoo xërëm waa ji kon nañu xërëm dindi ko bépp feebar boo gis mu tegu nit am na lu koy faj xëy na kay ñun ñoo ko yóbbu ci ki nga xam ne mënul waaye am na lu koy faj yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla jàngoro bu mu wàccee rek wàcce na garab gu koy faj ba mu des benn jàngoro mooy dee dee daal moo amul garab waaye bépp jàngoro bu am nekk ci kaw suuf yàlla wàccee na lu koy faj nit ñi xam nañ ko xamuñu waaw léeg-léeg nag doomu aadama yi lu leen jege da leen di réer yonent yàlla Suleymaan amoon na benn doom bu feebar tam ji feebar at yu yàgg Suleymaan faj ba sonn mu jaaxle mu ne jinne yéen daal di ngeen ma jaaxal yéen ak ni ngeen amee xam-xam sama doom ji feebar yéen kenn ci yéen mënu ko mënu ko faj ñu ne ko waaw ñu ne wax dëgg yàlla tële nañ def nañ loolu ñu xamoon lépp ki des daal ci jinne yi koo xam ne daal defagu ci pexe mooy am na benn jinne boo xam ne ñeent fukki at yu nekk dana génn ci biir géej gi place songam boobu daal lañ xam ne xëy na moom mu mun ci dara mu ne dem la nga indi ko jinne yi daal di ñëw embuscade fi jinne ji di génnee takk seeni fiir taxaw di ko xaar ba mu ne tëll rek ñu ne ko crasse rek mu ree moom jinne bi ñu génne ko ci géej gi di ko yóbbu ci Suleymaan mu ñëw fekk ñaari gaay ñaari waay toog ci benn suufu garab mu romb leen rek ree ñu indi ko ba ci kanamu Suleymaan daal di koy sànni mu toog ci suufu fauteuil Suleymaan mu siggi xool Suleymaan daal di ree kenn ci jinne yi ko jàppoon daan ne Suleymaan kii daal jaaxal nan Suleymaan ne leen la mu ne kii ree na ñetti yoon te xamuñ lu tax mu ree Suleymaan laaj ko sabab yi ne ko yow dégg naa bi ñu la jàppee di la indi fii ree nga ñetti yoon mu ne waaw Suleymaan ne ko ree bu njëkk bi lan la mu ne fi mu nekk ni juróom fukki at yu nekk sama kanam xam naa luy xew waaye xaw moon ne tey dañ may jàpp kon laa yaalamul xayba man fi samawati wal ard illa allah walal moom xam na lu nekk ci kanamam juróom fukki at nga xamoon ne tey dañ koy jàpp ndeke li muy xam-xam-xam-xam-xam-xam am la lu mu xamul ñu ne ko waaw bi nga rombee ñaari ñooñu suuf garab gi toog nag mu ne ñooñu ay gaskatu or lañ dañoo yendu di wër or ba sonn amuñu te foofu ñu toog or ci kaw or lan toog te ñoom ñu ngi dem di wëri or ñu ngi sonn ñoo di noppalu ci suuf foofu ñu toog or kese la mu ne loolu laa leen xool rek ma ree ñu ne ko waaw fii léegi léegi nag reetaan bi nga reetaan nag mu ne ah lan ngeen bëgg du da ngeen di faj xale bi ñu ne waaw mu ne Souleymane garab gi nga toog tiim la mooy faj xale bi loolu mooy wane doomu aadama souvent lu ko jege du ko gis gis nga tey bu ñu laajoon benn laaj da ngay gis ku nekk au lieu mu xool lu ko jege xelam dem na France kii dem na Arabie Saoudite kii dem na fekk li ñu la laaj mu ngi nii sa toog ba ci gis nga garab yi di ñu faj da ngay gis koo xam dafa feebar ñu koy yenu di ko yóbbu fu kenn xamut fekk garab yi koy faj mu ngi fii ci marché bi di jar ay fanweer ak ñaar fukk ak juróomi dërëm ak lu kenn xamul fekk moom mu ngi wëri ay ordonnance deux cent mille doomu aadama nag loolu la bëgg ah ba naree fay quatorze mais médecin bi ma wax li koy faj ay fer rek laay naan day am fu moyen yu toll rek day daj
gis nga faj naa ko dante ñaata at
quatorze 14 ans nga faju maa ngi koy faj dante allahu akbar daan dagg toog six mois sept mois léeg-léeg un an sax bu wér da day métti mais jeune médecin yi ma wax ni ñu koy fajee ay fer rek lañ may yóbbu ay fer ak antibiotique plaquette mille deux cent cinquante te bindal nañ ma ay ordonnance cent mille gis nga mooy mooy li ma wax xoolal bu heure bi jotee rek damay jël affaire rek xoolal ordonnance or- di wàcc normal ordonnance 100000 ak fer mille deux cent cinquante fer 1250 xam ngeen wute la de bu demee ba kii bi am na jant bi di kii temps bi muy mel deux heures day dagg parce que deret bi du wàcc noonu gis nga boo ko naamu feeree day dagg te daante dama faaxal ba sonn façon bi du nekk gis nga loolu moo lay wan ne souvent yenn saa yi doomu aadama bi li koy faj mi ngi nii waaye nit ñi nit ñi seen bopp ñoo bëggul lu yomb
même affaire njabare bi mu daan wax dama dëkk bi dama ñu mus Hmm, ah tey boo demoon ci benn dëkk wala nga dem ci benn waaye ñu ne kaay da lay ñaanal rek nga ñëw mu daan ne bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin boo ñibbee naan waaye kii est-ce que mën na dara kii ma ñëw amul lu ma jàngal lu dul fatiha jàpp nañ xoolal nit ñi jàpp nañ ne fatiha mënul dara nga dem ci benn waaye mu ne la utal nag bu ñuul ko nga bàyyi ba ñëpp nelaw yow tamit nga sol lu ñuul ko nga rendi ko fu ñuul ko gis nga xoolal hii da nga naan oh mun la ñuy def dañu lay tiital wax la yoo xamante ne yow sa bopp tii foog nga tiit ah nag bu ñuul ma sol yére yu ñuul ma rey ko fu ñuul gis nga wala utal lu yooyu lañ lay wax bàyyi ba bu la kenn gis nag bu la kenn gis na nga def attention de tiital la ba nga xam ne ndeysaan nga defe ne fekk dara la fekk du tus dañ lay nax kese kese kese kese di lekk sa alal yenn saa yi nga gis ku ci faju ba xëy dee dem safara parce que bokkaale la wéroo dem nga safara même boo wéroon sax dafa xaraam léeg-léeg nga dégg ku ne yéen da ngeen naan lii baaxul te man bi ma feebaree bi ma ko defee damaa wér loolu tekkiwul mu baax xatta bu wéree su fekkee diine nee na araam na it boo ko defee nga wérit na nga xam ne def nga lu araam xatta bu wéree jàppal ne def nga lu xaraam te lu araam ab julit war na kaa moytu ndiku ab julit war na kaa daw mbokk yi ibnul anbari nee na atub min al adwaadi yuqaalu al ilaaju addaa طب والسحر من الداء ويقال له طب kii moom kenn la ci borom xam-xam yoo xam ne daf ñuy dimbali dañuy firil baat yi ndax léeg-léeg baat yi am jafe-jafe doo ko mën a dégg ñoom ñu indil la ko yombal la baat yi daal di la koy tasal mu ne yuqaalu al ilaaj adda mu ne lépp luy saafara ñu ngi koy tuddee garab lépp loo xam ne garab la boo ko naanee nga wér loolu ci xeetu faju lay dugg xeetu faju nag léeg-léeg ñu ne la naanal reeni sàngam wala xasu sàngam wala xobi sàngam wala sungufu sàngam loolu araamul ñu mën na naan reen mën nga baxal xob mën nga xas mën nga dagg reen mën nga naan sunguf waaye dafa am sart de lan mooy sart yi ah sunguf si bu ci def dara sungufu nan la indil benn sungufu tooy la naanal sunguf si kese waaye ci du ci dugal petaaw wala yu ci lam bu ñuul ba pare dog koo naan wala sungufu nangam la wala reenu nangam la da nga koy baxal naan yemal ci loolu léeg-léeg sunguf bi kese mooy faj mais waa ji bañ boo ko naanee nga tane nga dem jox ko keneen ne ko man def sama lii ba mu ne nangam laa lan da lay jéemoo waa dafa am lu ma ciy kii lu ma ciy ñaanal wala lu ma ciy bind wala lu ma ciy def pour yow nga bañ koo joxi keneen loolu kese la mais léeg-léeg ci sa feebar yaram yi am benn garab boo xam ne boo naanee sunguf bi wala nga naan nga baxal wala nga naan reen yi wala nga baxal xob yi rek garabu mango lan lay fay daanos est ce que boo ko naanee dafa am loo ciy boole mais léeg-léeg yenn saa yi nga ñàkk xam comme gars yi ni ñu daan def démb nga ñëw am lu la gaañ waaye ne la xaar xaara bu ma la moccee ba pare bu ma la moccalee ba pare léegi boo demee nga naan xoobu mango rek da ngay wér fekk daf la bëgg a nax mais foog mu nga daakaar ne juróomi yooyu muy wax ci affaire yooyu fekk xoobu mango bi rek boo ko naanee affaire bi wàcc ak yeneen ak yeneen ak yi bëri na bëri na bëri na waaye sunguf boobu mu lay jox nangam ak nangam boobu faju la tudd faju boobu tamit nag bu leen jàpp ne xaraam na waaye tamit boo koy def na nga xam lan nga mar a naan ci quantité li ngay naan léeg-léeg nga jàpp benn garab baxal ko naan dose bi ëpp nga naan loo warta naan ci kii bi mu ëpp mu indi la problème mi ngi mel ni comprimé yi rek ñu lay bindal suñ la nee na nga naan benn comprimé nga dem naan 10 lu mu lay indil problème la lay indil gis nga dañ naan la benn suba benn midi benn ngoon wala ñu ne la benn suba benn ngoon wala ñu ne la benn rek ngay naan noonu la tamit la mel ku ci xamul nag bu fekkee ne dafa commencé di faj ba dugal la ci loolu yow boo ñëwee nga dugg ci da ngay am problème semaine ba le passé dégg naa ci rajo bi ñaari jëkkër ak jabar yu demoon faju yi ci benn àll bi ñu demee waa ji naan la leen garab ba pare ñu tegu ci seen fas bi di ñibbi dañoo xëm ci kaw fas bi saret bi ñoom ñaar ñoom ñaar lañ woon bi leen waa ji joxee garab gi ñu naan ba pare ñu xëm xamatuñu fu ñu jëm fas bi dafa wër ak ñoom àll bi ba ñu dee ci kaw fas bi wala bi leen nit ñi di for ci kaw fas bi fekk sonn nañ bi ñu leen di jéem a rawale di leen yóbbu hôpital am ñaa ñoom ñu faatu te dañoo demoon faju ji parce que ndaw si dafa ne dafa amoon doom mais après mu toog ay at mu gëj a am doom léegi mu ñu dem ci benn sëriñ nee nañ bu ne mën naa faj loolu jox leen garab ñu naan ñoom ñaar ñëpp ñu dee léegi nag xool leen foofu li fa nekk ci xikma yàlla ndaw si lu mu bëggoon doom lan moo ko ci dal dee léegi bañ a am doom ak dund ak am doom dee lépp avantage loolu daloon ko muy continuer dundam ak lii dal ko lu gënoon baax asa an takrahu shay wa huwa xayrun lakum asa an tuhibbu shay wallahu ya'lam antum la ta'lamun yenn saa yi nga bëgg dara fekk loolu nga bëgg baaxul ci yow yenn saa yi nga bañ dara loolu nga bañ moo baax ci yow ndax yàlla moo xam xamoo doom la bëggoon lu mu ci jële amul doom dee te deew yemul ci moom kese moo dee waaye moom ñaar ñëpp ñoo ànd dee après waa ji daw sëriñ ba bañ ko waxee loolu dafa daw dem biir Gambie comme frontière la woon diggante Gambie ak Sénégal mu daw gis nga parce que lim leen jox ñu naan ko dafa ëpp kon mbokk yi loolu mooy suñu darsa tey mooy ñaari xadis yooyu ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay question incha allah